alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah ñuy taxaw ci barab bu tedd bii di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun barab bii nga xam ne de suñu mbokk suñu mag suñu xarit suñu soppe al ustaaz Ahmad Ba radiallahu tabaraka wa taala anhu wa rahima fii la taxawoon ci jamonoy aj ñu ñaanal yónnee ñu vidéo bi ñu ko doon xaar ci fan yu néew fële ci Amérique yàlla dogal moom mi nga xam ne dara tëwu ko mi nga xam ne ragalu dara mi nga xam ne mooy góor dañ ñu ko soxla jël ko ci ñun kanam bu betti ndax fi aj rek ñu ñuy wax préparation waaye boobu cooneel aj gi jàpp na ko ba nga xam ne eh, sama borom daal ci la jaaree li tëj li gën Oustaz Ahmed Ba di borom xam-xam borom baax borom jikko rafet xol yaatu nit ku ëmb lu ne rek ci xeeti mbaax mën nga ko tuddal may ñaan sama borom fa jëm gënal ko fu mu jógee kon soppee yonentu sallallahu alayhi wa kon nooyee yal na ko yàlla booleeg yonent boole ko Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi même amuloon moom waaye boole ko sëriñam ba soppeem ba wala ana Cheikh al Islam Xaaji Ibrahima Niass yàlla defal ko mulkan kabiran wa ada mulkin kabirin di fii ahla ayliyin ana yàlla defal ko loolu yàlla bu mel ni oustaz defe naa ci dundam lañ ko war célébrer ñu bëri nag ñu mel ni ñoom dañ leen di sàgganee bañ jógee fi ñuy soog a feeñal seen ni ngeen ko gisee ci fan yi waaye nag yàlla mi taxoon ñuy liggéey yàlla moom gis na liggéeyam yàlla bu liggéey